am na si nag ñoo xam ne nii xam Juan Branco la ñu judd si ay famille yoo xam ne nii plutôt aisé parce que papam producteur de cinéma la woon boo xam ne dafa dafa yoroon euh, benn fonds boo xam ne nii pour def ñi xam audiovisuel pour que culture américaine du ñëw yàqu culture française mu jàng ci lycée yu baax dem ba jaar université mën a jàng doog a dem Sciences Po loolu nag boo ko gisee moom mu mën a bokk ci benn classe sociale ku ne am xaalis mais mu gis ne lii lii ñuy dund ñii lañuy dund ci deret askar bi mu ne non moom du dund loolu dafay génn dénoncer loolu bind livre bi ñuy wax crépuscule ci Macron ak ni nga xam ne nii noonu duggee ba nekk président c'est la même chose que Ousmane Sonko a fait su ko neexoon tey la plupart mu toog impôt di lekk xaalis di vérifier ñu koy fay cinquante millions un milliard mu jàpp njàmburam dem tabax château. fële ci Ziguinchor yu di di yóbbu màkk x fois doomam yi dem Dubaï il a préféré mu ne moom par valeur du sàcc dara dina xeer pour que ki nga xam ne nii amul chance boobu judd ci famille bu bu bu te moom ñoo ëpp ñooñu mu xeexal leen pour ñu mën a am ascension sociale ascension sociale mooy que képp ku judd ci dëkk même bu sa papa ak sa yaay amul mën a am nag boo jàngee boo amee talent boo mënee football. bu nekkee da nga mën da nga da danga nekk da am métier bu baax tijji sa société ñu jox la ay marché yow di nga mën a egg benn niveau social loolu nag moom lay Ousmane Sonko di xeex moom lay Juan Branco di xeex ci loolu mooy ki ñuy wax Julien Desange nga xam ne nii moom mooy def moom moomoon Wikileaks australien la moom xam nga Juan Branco moo nekkoon avocat kooku CIA da ko doon xeex FBI di xeex États-Unis Trump ba Biden ñu ngi koy xeex pour extrader ko mi ngi mi ngi si prison bu nekk Angleterre mi ngi nekkoon ci benn benn benn benn ambassade bu euh, Équateur xeex nañ ba génn ko foofu mais kooku xam nga def dafa wane ne américains yi dañuy rey afghan yi mu génne des images de drone mooy les lanceurs d'alerte ñëpp xam nañu Wikileaks mais ju leen décence boobu. mu am avocat mel ne Juan Branco mu nekk xale Juan Branco xeex contre américain yi Juan sénégalais yi je pense ak ak ak li fi nekk nii ñooñu tiitaluñ ko tiitaluñ ko parce que ba léegi moo amoon na droit dem seeti son son son son son son client muy d'échange ba si biir euh, ambassade bi et on a même vu que dañ leen doon surveiller donc service secret wu États-Unis lu ñu mel ku tamit ak ñoom mais c'est pas les sénégalais ñi nga xam ne ay pour man ay journalistes yoo xam ne nii euh, histoire day wane ne ñoom amuñu xam-xam comme Cheikh Yérim Seck amul xam-xam ñooñu jaaxluñ ko pourquoi je dis ça mooy Cheikh Yérim Seck moom boo xoolee ba xool li muy jàngal lan moo si nekk luy gindi nit luñ ko waxul loo xam ne dafa ne nekk ca peggu ñiy décider ñu jox ko ay secret mais mu toog moom ñu ne kii dafa am xam-xam dafa def analyse yoo xam ne ni en fait da lay projeté ñun gisaguñ ko mu doon jaayo nag mooy français ak damay dem ci endroit yi sud yi damay côtoyer des des des des des des décisionnaires de France hôtel yeeg yooyu complexe boobu amoon fi mu toll Sénégal loolu dafa décomplexé les Sénégalais maintenant. ku si nekk sa làkk mu moo la gënal français boobu di beneen beneen bi mooy euh, boo xoolee moom dafa pour man frustré par rapport ak Branco Branco en un temps record gis ngeen le document qu'il a sorti document bi nga xam ne nii tellement fourni parce que dafa bokk si nit ñoo xam ne nii peut-être yàlla may nañ leen ñun bi ñu nekk xale ñu mun a am capacité boo xam ne boo ko déggee muy wax du wax di tourner au pouls wala muy wax di waxaat saa à di di def ay bon euh, d'après tout ça si on va dans l'essence et que donc en en vérité et que la non Juan Branco il te fait sujet verbe complément et il passe même le temps bi mu imparti tellement mu lay jox information bëgg ko jeexal que il parle plus vite que en les autres. et pourquoi il il a du succès li muy def ni mu neex si moom te mu yomb si moom c'est parce que Sénégal comme France li ñoom Macron def France loolu la ñi ñu nekk fii ni def Sénégal donc loolu moo tax moom il se retrouve dans son élément parce que tey ñu ngi wax naan euh, pourquoi ñu jël avocat Sénégal avocat sénégal ñoom bëgg nañ dem gis Ousmane Sonko sax mënuñu ko gis bu ñu demee dañ leen di gazer. sàllal lakk na mos a dugg seen oto yi ñu dàq leen mais ñooñu dëkk bi ñu nekk mënuñu fi exercer dara te pourtant les avocats dañu on les on léegi ñun ñi fi nekk Ousmane ko amul moom possibilité mu jël avocat bu ko layal wala bu tax ba moom droit ñu ñu ñu ñu ñu protéger ko mais mu dem ut avocat boo xam ne mi ngi fële kenn mënul ko dara ñu naan ñu noo yéen a waroon jël avocat bu mel noonu. da ngeen complexé da ngeen lii non du complexe c'est pas qu'il est blanc man en deux mille vingt et en un en deux mille vingt j'ai fait un texte boo xam ne en réponse à Amidou Amidou Anne texte bi maa ngi siy wax ne nous te ñëpp xam nañ ne man je un panafricain der bu ñuul laa gëm Sénégal laa gëm et j'ai bien te boobu je pense que ne que ñu si bëri xamuñu woon Juan bu nekkee sax Sonko xamoon na ko nous aimons Juan Branco nous Mélenchon parce que se battent pour des principes humanistes loolu c'était en 2020 am na français yu bëri yoo xam ne mais man dama leen a naw xam ndax lan doone bëggoo sénégalais rek wala bëggoo américain rek non am na américain yoo xam ne yu baax la tey mais man ñu si bëri na naan non Barack Obama mais man Barack Obama mais. je dirais pas bëgguma ko mais je l'estime pas xam pourquoi je l'estime pas c'est pas parce que il est noir c'est le premier président noir du du du des États-Unis parce que Barack Obama moom moom moo rey moo permettre Sarkozy mu rey euh, Kadhafi peut-être loolu nee na si li muy gën a regretter mais qu'importe bi mu fa nekkee li mu doon li mu doon li mu doon doxal da doon doxal politique suprémaciste bu États-Unis expansionniste bu États-Unis amul noir nga amul tii amul arabe nga donc lu lu arrangé états lay def donc ñun lu ñu arrangé la ñuy def biñ koy waxoon ko petit français dafa béy ci Twitter mu ne le petit français est au service du grand Ousmane Sonko pour ne moom amul complexe boobu ñi koy waxal na naan xamul dara amul ay dossier amul léegi léegi lii am na xalaat na dégg nañu mu wax ko mais Juan Branco. la plus plupart des dossiers yu muy def en en tant qu'avocat da koy def de façon bénévole livre mu gënoon crépuscule daanaka moo jël il a vendu je pense bu nekkul ay huit mille wala wala wala wala wala lu ko ëpp cest à en mois donné nekk na ci top des ventes au niveau national au niveau de France te du benn livre mu génn beneen livre bu bees bu tudd Anuna Juan Branco. Euh, mënoon nañu am benn bu Sénégal mais ñu am xanaan boo ko Sénégal c'est pas possible xam la moo tax parce que moom dalay wax di leen niital li nga xam ne yenn décision yi ñun duñ ko gis mais li si ginnaaw relation yi nit ñi am moo leen ne ah dëkk lii moo tax par exemple man j'ai j'ai j'ai toujours dit que ne que boo xoolee Barth ak ñu demee si bi muy bi muy gis mag Sall mi ngi ànd ak nii ak Khalifa Sall mais c'est eux dans eux. et que Ousmane Sonko mënoon na am nag ku nekk si ñoom bëgg ko bëgg changer système bi pour que ce ne soit plus maintenant être mooy décider yow que di nga am wala liggéey gouvernement mooy décider di nga am mais pour que les classes sociales cest à ñu nekk ci ci banlieue bi ñu nekk ci village yi ñu nekk ci zone yu gën a sori ñu mën a am espoir ne dëkk bi ñu dëkk ne bu ñu jafee bu ñu amee talent dinañ mën si génn donc l'un de ces leitmotifs et quand je dis leitmotif mooy. moom day dafay wax ne ñi nga xam ne nii dañu nekk de caste caste wala classe caste la tuddee parce que caste sax expliqué la ko ne moom caste sax en fait organisation sociale boo xam ne la ku si nekk am nga looy def tëgg bi dafay defar di géwél bi am a defar uude bi am na lu mu donc si nekk am nga benn njëriñ social mais caste boo xam ne la caste inutile la amuñu njëriñ benn benn benn ci population bi lu dul wax. ba pare li ëpp li population bi war a dundee ñoom ñoo koy jël mais loolu nag lañ bëgg mu jeex koo xam ne nii amuloo talent amuloo jàng kenn bu la jox loo xam ne nii yow war nga si mën a lekk parce que même bu nekkee ne gouvernement wala fonctionnaire c'est pas fait pour être riche loolu la nit ñi bëgg a comprendre et c'est ce qu'on a compris avec Ousmane Sonko s'il voulait être riche bu bëggoon a xaalis rek mais du génn day mën a toog fi mu nekk parce que boo demee impôt ñi toog si mbedd mi sax def. di def euh, courtier sax li ñuy am boo moytuwul am nañ ay terrain des terrains am nañ xaar xaar am nañ ay kër ay kër waxuma la nag ñi nga xam ne nag ay chef de bureau lañ waxuma xam ne dañuy dem di vérifier ay ay entreprises yoo xam nii ay milliards lañ am en terme de budget donc ku leen wax ne Juan Juan Branco non blanc la bu leen ko déglu non non non ñun ñu déedéet c'est pas parce que tu es blanc que tu parce que le problème c'est principe ab. nit ku weex koo xam ne ne dafay respecter principe moo gën nit ku ñuul koo xam ne dafay exécuter ay ordres yoo xam ne c'est illégaux illégitime juste pour perpétuer des intérêts yoo xam ne nii système bi pour lépp pour protéger système bi la euh, Richard Deacon dafa nekkoon Sciences Po moom moo jël xalam borom ko daanaka moo ko sax dugal ci interdiction yenn classe yi mais nee bi mu demee ba kooku gaari avant muy gaañ sax dafa doon gis en fait ñi nga xam ne seen famille yi nekk si kaw mu ñuy def ba di dugal seen seen seen seen ay doom ci Sciences Po pour que ñoom bu ñu génnee dañu nekk si benn dañu nekk benn élite mu ne mu wax gis bi kaw kooku gaañoo automatiquement mu gis ni benn benn benn système mettre en place pour que loolu ñu mën ko sauvegarder moom nag ñu koy ñu koy jay ba ko xëcc système boobu moom loolu dafa dem mu bañ ko mu génn si parce que ñi ko nangu. ñi ngi si te ñi ko nangu dañ leen utiliser te foofu da dama bëgg jox conseil Pape Sidi Fall pip maanaam Pape sax Pape Djibril Fall maa ngi nuyuwaale Pape Sidi Fall sama xarit comme Juan woon mën naa ko wax comme Sonko la woon bu amee ñu mel noonu ñoo xam ne dañ naan ñii dañu am attractivité mooy bu ñuy wax dañ leen déglu am nañ xam-xam. te yaakaar nañ parce que ñoom dañuy soxla du cent neuf pour mën a perpétuer yow boo bokkul seen classe sociale comme pap pap pap pap euh, Jibril bokkul seen classe sociale mais gis nañ ne am na lenn loo xam ne nii moom mën na leen ko prof mën na leen ko indi dañ lay di tagg naan la bokkoo ak ñii xoolal bul xalaatee ak ñii yow da nga war a da nga war a nekk fii donc loolu ñu lay flatter pour te faire croire que tu es le meilleur que tu l'un d'eux que yow tu es sa ambition et tu es tu tu euh, destiné à un à faire de grandes choses loolu moo lay met ba yow boo moytuwul da fàtte en fait ki nga doonoon démb da ngay fàtte parce que li nga doon xeex li nga doon wax ils vont te que ak ay avantages bi ñu lay jox oto kër photo même bu ñu mënee sax jox jabar ñoom seen biir dalay dalay yóbbu foo xam ne en revendication bi nga doon def yow da nga koy fàtte ba ku la ko bëgg wax bi dalay sax naqari et c'est ce qui est arrivé à Idrissa Seck parce que Idrissa Seck mais classe sociale boobu la jóge woon bi mu demee ITB ñu koy posé question est-ce que bëgg nga dund lii ak li nga mu ne moom bëggul dund comme li Sénégalais dund parce que. moom bu demee France bëgg na nekk ci château yi gën a mag hôtel yi gën a mag bu demee euh, États-Unis même chose donc nan nga mën a amee dirigeant bu hautain à condescendant buy ne moom ni peuple la dundee moom bëggul dundee noonu parce que moom dafa tàmm lu neex dafa tàmm lu baxane donc moom day soxla toujours lu neex lu baxane mais pour le respect waroo ko wax waroo ko def parce que njiit ñi bi ñu bëgg mooy njiit boo xam ne dina xam lu lu population bi dund parce ñu si bëri nag da lañu jaaxal mais xam nga la ma ce qui arrive mooy dañuy fàtte dañuy fàtte dangay fàtte da dem benn moment je te dis dootoo ñàkk da ngay dem benn moment mais dootoo doo xeeñ boo ma dootoo gis suuf tu prends une distance vis à yow de classe sociale bi nga bokkoon donc loolu noonu la Juan Branco xeex ba mu am distance bi am ak moom. ñu koy giñ nag ñu bëri naan Juan Branco mu ëpp ay dossier yërëm wax na ko yi yërëm sekk wax na ko te yërëm warul kenn wax kenn ci dossier effectivement amoon na dossier boobu noonu mooy dossier bi ñëpp xam mooy doomu bu boobu taal ko yóbboon euh, di ko ñaanal parce que ñoo bokk dëkk njaareem yàlla xaare ko àjjana euh, avocat woon parce que bu ñu ko bu ñu ko bàyyi woon ak taal rek tey yërëm du génn mais yërëm dafa génn parce que dañ ko gracier nga am beneen dossier ak sa doom parce que loo sax c'est personnel mais je pense que ni moom ni mu génne parce que def nañ demande de liberté provisoire kenn kiiwu ko après vise de procédure donc automatiquement dafay libre donc on y a moom si papier rek doomam daal di libre te doomam ci vidéo il a avoué que seq na ak ko xam ni mineur la mais ci procédure dam leen dam leen xool lan moo tax ñu bàyyi ko nga ñëw ne da ngay yare sa doom après wax ñu kii par après ñëwaat nag bëgg ñu tànqal beneen bi mu am beneen dossier boo xam ne nii yow dañuy yóbbu dañuy yóbbu euh, prison pour bati plus mooy naari affaire bi metti la parce que yóbbu lañu si endroit yoo xam ne nii peut être yow mosoo yaakaar naa na Sénégal nga génn mu metti la nga def conférence de presse daal ne di nga def benn enquête di nga def documentaire boo xam ne nii tu vas montrer comment les Sénégalais vivent à et que loolu noonu c'est inhumain teguñ ci deux une semaine ñu woowaat la ne la whatsapp bi yaa ko moom yaa ngi wax xale bu jigéen bi yaa ko envoyé temps pour yàq biir nga ne noonu da nga ko doon fayal moom euh, euh, fu mu dëkk yooyu noonu après luñ ci teg nga noppi waxatoo ci du dossier bati plus waxatoo ci affaire rëbës n'est-ce léegi nag yow da bëgg. ngay wax waxu nit di ko déformer te yow sa wax bi nga wax répété waat ko bu ñu la ko waxee nga ne du yow yow nee nga bi ngay defal Pape Ngagne Ousmane Sonko moo ne damay jógee Ziguinchor dem delloo si Macky Sall ci lool sax ku si dee sa yaay juraat yow da nga boole ñaari ñaari wax yoo xam ne nii bokkuñu te pourtant yow bi bi ngay wax ak Mamadou Ndour Faye mi ngi naan la ban contexte la nañ ne wax da nga koy da nga dugal ci contexte mais yow da nga dem jëli wax joo xam ne nii mi ak wax joo xam ne nii mi ngi ko waxee moom mi ngi fa live am te ni mu ko waxee waxul nañ ñi xale sax moom dana xale sax nee ku dee sa yaay jura waaye fii kenn lu fi dee yow nga dina wax jooju kole ko boole wax yoo xam ne nii fi ñu ko waxee bokkul jamono yi ñu ko waxee bokkul support yi ñu ko waxee bokkul nga dajale ko def ko benn phrase daal di koy wax ne moom moo ko wax yow nag yow fi li nga wax moom la ñu tegalaat. nga dem xaw ma yaa bindal français mbay moom du faj moom mu wax ko en français naan même si même si alors que yow li nga wax wolof la nga waxal kan moo traduire mbay moom du fay même si bi elle a répété moom moom du fay a répété la même chose ci Pape Abdoulaye Touré wax euh, Ndour que ne que Pape Malick Ndour que dañ ko jàpp ne am version bi nag dañ koo jàpp sa buntu kër sa wetu kër alors ko loolu noonu kenn mësu ko déggee version boobu la. même chose nga def ko Ismaël Madior Fall daal na ko waaw ko ah effectivement lire na non non oui effectivement c'est c'est visé dans l'article 324 alors que mais corruption de jeunesse kenn bind ko ci ordonnance de renvoi bi donc da ngay invité nit ñi ñoo xam ne dañoo nekk en difficulté parce que Ismaël Madior Fall dafa ñëw pour tontu Maître Doudou Ndoye mais Pape Malick Ndour dafa ñëw pour toll euh, Sané bu nekk Yann euh, Amane Yérim dafa ñëw pour seetal boppam ci li mu waxoon fële donc on les offre une pour que ñoom ñu mën a sagg seen bopp et puis c'est comme si c'est préparé on leur pose des questions yoo xam ne nii qui ne sont nulle part mais en direct ces questions là dañu naan ok donc gis daan mën na mën na mën na mën a jàpp ne li nga wax dëgg la alors alors que teew ko si benn base claire da lay wax naan ah ñun de téléphone bi wax na téléphone bi léegi léegi lii mais lañ ko wax beneen bi. Euh, Juan Branco liggéey na yi bind na livre ñaari livre ci yi yërëb dañu lay wax benn article boo bind ci ci CPI waxal benn dossier parce que CPI moom li clair ban dossier lañ la mës a consulter nga wax ne dossier euh, Gbagbo la wala nga ne dossier Rwanda la wala nga ne dossier Kenya la tel même bu nekkee ne génnewu ko beneen bi mooy moom jàngam xawaan ba ko jàngam xam na lay wax dana man man kenn mënuma yay ci jàng parce que bi ma tollee ci phase d'accumulation de connaissance dama ko def ba mat sëkk parce que ñu xam na ne ñooñu bu ñuy waxee yow li ñu mën a wàññi mooy kii ban diplôme la am kii fan la génne mu ne loolu loolu loolu moom da ko lijjanti kenn mënu ko ko wax thèse am bi mu présenté comme thèse Cheikh Anta Diop tam Cheikh Anta Diop thèse am euh, nation agriculture loolu thèse am la woon da ko waroon présenté far gars yi bañ mu mu présenté beneen thèse après ñëw génn ko livre moom thèse am c'est en ligne yi mu defaat si yeneen université yépp c'est en ligne donc yow Yérim sa thèse wala say article yoo xam ne nii c'est de grands articles livre boobu nga bind boo xam ne ni sa part yoo xam ne man bindoon la bindoon naa xaw ma ñaata kii la la la ko génnal ñu ko en ligne ñu mun ko lire wala nga wax ni yow fan nga liggéeyee pour ces pays beneen bi euh, mooy li ñu wax ne moom sax yéen wax ko dañ koy topp ci benn affaire wax wax boobu mais loolu nee na wax ko mais affaire de viol la dañuy doon topp dañ dañoo jiiñ euh, Juan ko jiiñ viol Sonko ko viol parce que am na ko bindoon Twitter bi bindoon ko ne ko waaw parce que ñii ils ont ça en commun loolu la bindoon man aussi ils ont en commun que ñëpp dañ leen a diñ mais kenn si ñoom condamné wuñ ko pour pour viol léegi Juan Branco gis nga foofu site boobu mu def document bi mémorandum bi même site bi def yàggul de y a même pas 15 jours génn même une semaine génn na si un article bu long buy wax de long à ci accusation bi ko ku jigéen kooku defoon ci affaire viol bi mu koy wax benn par benn benn par benn man moi j'ai suivi le loolu yàgg na avant que sax ñun ñu xam Juan Branco parce que dossier boobu xale bu jigéen bi nekkul pour stigmatiser ko am na droit def loolu parce que ñoom France loolu mais koo xam ne ni dafa am euh, lu ñuy wax affaire peut-être pornographique ak yooyu noonu day wane boppam si photo ak loolu c'est sa vie. neen dafa dem ak moom après suba si mu dem jékki-jékki rek woo ko ñëw ne ko man porte naa plainte bi ñu ko convoqué mu laaj mu ne non en fait dafa am loo xam ne ma ko naan dafa la forcé ma ne non forcé wu ma lan nga wax ne non léegi loolu dossier bi ko Macron ak kiy déggee mu état bi ak ak mu mën a porter plainte parce que moom dafa woon ne retire plainte bi léegi nag ñuy xool. lan lañ mën toppee xool Branco ñu koy. ok donc connexion ba demoon ñu koy xool pendant pendant pendant lu yàgg mënuñu ko gis ils l'ont ils l'ont ils l'ont xale bi pour mën a am nan lañ koy qualifier ba boog da ngeen mën ko loolu moo gën a grave affaire Adji Sarr parce que ils l'ont blanchi nee nañ toppuñu ko dara biñ demee na bëgg xam ne gisuñu ko dara xale bi jigéen bi ne noo dafa jox loo xam ne lu xawoon rek aspirine après comprendre ma. mais ils se sont rendu compte que sax mu ne moom jël na ko en fait du substance boo xam ne dañ koy tere wala dara donc moom ils se sont connus xaw ma Instagram mu ñëw seeti ko mais 33 ans euh, boobu loolu est-ce que du woon 31 ans xale la donc dafa la seen yëf xale ça les concerne xale bi du mineur moo nangu woon à la après xale bi elle a eu des yoo xam ne yoo xam ne ni moom wax na. ne effectivement gouvernement bi ñoo waxoon teg pression mais moom si boppam bugg ko woon def mais loolu ñoom bu ñu ko jëlee ne non Juan Branco c'est un violeur comme si koo xam ne dañ ko jiiñ viol jiinaan ko ëmb jiinaan ko jiinaan ko alors pas vrai à part loolu Juan Branco gis nga euh, ni Sonko mel Sénégal noonu la mel France suñ amoon dara lu ñu koy toppee mais on l'aurait emprisonné parce que c'est quelqu'un qui les emmerde il les emmerde il les emmerde il les mais munuñ si moom dara dara dara ku bëgg a lire loolu ngay dem nga lire ko maintenant bu nekkee yërëm mais moom il a avoué que elle il pensait que ku jigéen ki doon bañ donc am na xam moom egg def moom avoué na loolu donc il faut pas que ñu mettre les choses damay gis beneen yoon ñuy wax aussi affaire Sitor bi ak Sonko di leen jéem a taxale c'est pas la même chose Sitor li ko xam nga la moo setal Sitor li ko setal mooy Sitor euh, certificat médical. infirmier bi ko signé bokkul ak médecin bi nga xam ne médecin bi ko signé bokkul ak infirmier bi ko remplir loolu lañ loolu lañ ne si lañ sukkandiku pour pour bàyyi si tool mais waxuñu ne amul de waxuñu dara dañ ne mais mais loolu noonu certificat médical boobu noonu mais dañoo waroon woo kon infirmier bi ak médecin bi à la base ñu parce que médecin yi ñoom des fois mën nañ imprimer ay papiers jël papiers yi bàyyi ko foofu bu fa nekkul comme booy defee certificat médical après yow da kii rek moom déjà moom signé na def tampon te loolu moo am loolu la médecin yi def donc ñoom xam nañ ne en fait médecin loolu noonu dafa am c'est des choses yoo xam ne ça se fait dans la pratique maintenant comme loolu porte de sortie la fa lañ jaar yàlla ne non non non après wóoru parce que kii bind lii kii kii ki ko remplir bokkul ki ko signé mais newuñ ne Sitor deful wala donc Sitor ak ak ak Sonko. amuñu lenn lenn loo xam ne wute am nañ ay preuve ñoom yu concordante au delà ay affaire euh, euh, certificat médical ak yooyu mais lu gënoon kii mooy bon le certificat médical a été mal fait mais nañoo nañ woo euh, médecin bi woo